moo yeboon ay doomi aadama yu takku ñu doon jéem a dem mbëkk ji gannaaw bu ñu réeree la seen gaal gi daal di teere fii ci Ngor ci fajar gi noonu Ibrahima Wade tàmm di fanaan ci booru plage bi daanaka moom moo leen daal di wàllu gannaaw bu ko xajam yi yeewee. dama euh, tëdd ba ay 6 heures du matin dégg sama xaj yi di mbow sama xaj yi bu ñuy mbow rek damay dégg quoi ma gis benn gaal bu mag. yëpp ay góor jigéen magax ndaw la fay ñax lépp du ma yeewoo si diggante nelaw bi si laa leen oo signalé leen ak sama torsu parce que bu daloon si xeer yi ñëppay dee ñu bëri duñ si mucc ci biir ñu daldi fay bàyyi seeni i lekk seen yére ay butéyu ndox daw daldi di fay jóge budul woon xarañteefu moom mi lee bilan bi dina doon jéggi dayo ñoom ils ont cent cent quatre vingt nangam personnes. ñoo nekkoon si gaal bi récupéré naa récupéré naa cinq indi handicapés yoo xamante ne mënuñu woon sax cëppeelu parce que gaal bi dara noroon tànc. bu ma sooboo génnee naa ñaari xale yoo xamante ne deux mois lañ am ak benn xale boo xamante ne trois mois la am yaayam génne naa ko j'ai cinq femmes. cinq femmes laa tudd génne si gaal bi ñoo xamante ne nekkuñu sax ay sénégalais parce que gaal bi boo koy xool ñi doon dawal gaal gi ay sénégalais la mais ñu si bëri ay étranger la kenn jotu see ñàkk bakkanam tax na muy ñaax ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel li ni mel ànd ak tey te dal wante it muy ñaan njiitu réew mi ngir rek mu daal di leen bàyyee xel bu baax a baax. maa ngi wax maa ngi koy appelé le président Diomaye sama maam. géej gi nii da jox ñi ko xam mooy ñuy nekk si code bi ñoo ñooñu ngay recruter pas ñuy nekk si école yi di jànga ñuy nekk si code bi ngay recruter ñuy taxaw ci frontière bi gaal du génn ñun mën nañ loolu mën nañ ko liggéey mën nañ ko. phénomène migration bi wéy di law ba tey ci Sénégal naam sax ñu bari jot nañ cee ñàkk seen bakkan ren jilee taxul benn yoon ndaw yi daal di fomb li ni mel. njaboot yu bari daal di see loru ba tey noppi